asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen nuyu leen naan daal leen ak jàmm ñu ngi fii ci terrain Sénégal Japon ñu ñëw rek seet ñi nga xamante ne ñoom ñoo di entraîneurs yi ak techniciens xamante ne ñoom lañ fi fekk pour ñu defal ñu rek njàngat ci li nga xamante moom moo di match bi équipe nationale doon football démb euh, contre li nga ne moom moo di euh, Niger waaye tam ñu ñu njàngat ci li nga xamante ne moom moo di wàccaay lii di euh, Coupe d'Afrique des nga xamante ne war nañ kaa amal fële ci réewum Côte d'Ivoire da ngeen ànd ak ñu ñu dem seeti ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk ñu defal ñu njàngat bi ñu mel bon match bi xol naa ko seetaan naa ko comme wadi voyez, il faut préparer équipe il faut que les joueurs yo essayer sur certains postes donc il faut que mu xol ak système bi muy jouer mu système il va voir ndax ces hommes là ils sont capables de jouer sur ce système Mais mais football toujours dañuy wax nan 6 4 3 3 4 2 4 5 4 2 4 mais entraîneur bi xam il y a aucun système pour xam donc ça dépend en fonction de l'adversaire. ça dépend toujours en fonction de l'adversaire. mais match aussi qui nous donne joué euh, dañ hein, parce qu'ils sont qualifiés c'est une équipe aussi qui joue bien C'est un regroupement défensif de Robach. donc ils nous ont posé énormément de problèmes parce que c'est un regroupement défensif de Robach mais quand même nous aussi tamit on n'avait pas aussi euh, l'équipe type aussi tamit am monsieur si ñoo donc il y a tous ces facteurs là donc il fallait essayer ces gens là. man suis na sama xel parce que football parce que le football il va très vite donc nous li am yakar parce que c'est des joueurs vraiment euh, de qualité donc euh, il faut que nous xol ñu koy organiser ba affaire bi mais vraiment man amna ci yakar xamna nak dina métti ci ñun parce que ñepp ils veulent nous gagner donc il faut que mu métti ci ñun bu ko jour yi xamé rek nga xamni dañuy dem ak ben mental bo xamni da fay dëgër xam jom mo moo leen ciy génne. match ni ma ko gisee du yomb d'abord abord Gambien dañu mëna football té comme dañu jege frontières yi match boobu caaxaan gagné wu il faut que ñu football football deug toyel may xex bu baax pour génn ci match bobu parce que Gambien dañu mëna football dañu mën football mën xex donc ñun pour ñu gagner leen il faut ñu téye bal bi football bu baax normal pour ñu mën leen gagner. non man duma ko critiquer parce que Alioune bo xol presque depuis qu'il a ba mu jëlee équipe ba légui lañ koy critiquer mais entraîneur il faut ñu critiquer la mais mom il accepte dañ koy critiquer mais da koy positiver seet li baax mu jël ko li bon mu sànni feulé lolu moy ñet mais critique mom du dañ mukk ci Sénégal parce que ñi nek ci biti dañu mel ni ñoom ñoo gën a xam sax entraîneur football bi moom mi jamoon jàngi dafa mel ni sax ñoo ko gën a xam mais nag football dafa am ay haut ak ay bas donc il faut que ñu xalaat loolu waaw. non match bi méttiwul su ñu waxee ne métti na métti man man méttiwul parce que problème bi mooy que donc nga convoqué ay comme Aliou dafa convoqué ay joueurs donc joueurs yëpp ku ci nekk sa esprit mi ngi nekk dem kan donc dañuy éviter blessure.

En aucun cas, on l'équipe du Sénégal était supérieure sur le plan de jeu et tout. Donc, maintenant, il y a victoire, Il faut jouer, jouer, jouer, jouer, Ce qu'on voulait, c'est la victoire. Aller à la canne avec l'esprit tranquille, avec victoire. Maintenant, non.

parce que man am confiance ci Aliou jeex na su jëloon ay junior yóbbu leen sama xam ne carrément que Aliou ñu mu jël wol leen te c'est que résultat dina am c'est ça l'objectif d'un entraîneur parce que mon vision bi mu am moom mi nekk ci biir moom mi nekk ci biti man mun ma ko am il est à l'intérieur man je suis un derrière donc nit ki mu nekk ci biir néeg bi yow nga nekk ci biti bëgg a xam bëgg a xam nekk ci biir néeg bi te Sénégal noonu la ñuy te ça n'est pas bon. Nous devons encouragés faire encourager, nous appuyer. Non, c'est un frère, ami. Wow. Donc, le euh, football, parce que le football est déjà 90 minutes. Le football est déjà Victoire, défaite, le nul. Mais je sais que nous, si nous sommes de Nous dans tous titre, si nous sommes les deux du parce que tout le monde bëgg battre Sénégal objectif bi loolu la on est l'équipe à battre fu nek ni waaw ah, nul na ak Sénégal sax honneur le pour pour pour pour un pays donc nous sommes Gambie en aucun cas man je sais que c'est un match qui doit se jouer en 90 minutes ou plus hein et que je sais que inshallah Sénégal nako ko Wow waaw le euh, Sénégal jouer un match tagato Euh, fii si seen euh, stade Ablaye Wade ak Niger match bi nga xamante ni dafa doon tàggatoo ak public mais match bu am solo si ay jàngat euh, match bi daanaka gis nañu entreneur bi teg li nga xamante ni da koy peaufiner waat. pour xol nu euh, aborder li ñu woyé euh, Coupe d'Afrique des clubs champions moy système bi nga xamantene 3-5-2 bi mais gis nañu ci animation bi benen côté bi côté euh, Ismaël Jacob bi qui gënon dox côté droit bi mais lolu yépp xam nga limay wax football projet la entraîneur dafa am projet am nekk di ci liguey euh, te nag doo amee sa projet du lépp ngay dévoiler surtout soo nekkee si phase bi nga xamante ni da nga nekk di essayer euh, beneen jàngat bi mooy entraîneur bi jéem na tourner effectif am yëpp jéem a dugal le maximum de joueurs pour tourner ko pour ñëpp ñu mën a football. Euh, li may li ma ci gën neex rek mooy le fait que mu tourner effectif bi mais gis nañu tamit Sénégal jouer sans Sadio Mané par moment. problème bi ñuy gën a am mooy suñu équipe yi imposé bloc médian wala bloc haut nu ñuy def pour trouver solution euh, dëmb par moment si ay juróomi wax minute wala ju fukki minute gis naa équipe bi a di latéralité bi di élargir jeu pour mën surprendre adversaire bi mais ba léegi trouvé wuñu clé bi xam nga jongante football dafa am les moments te juróomi wax juróomi moment am si football mooy moment bi nga dañuy ni transition mooy transition défensive transition offensive mais aussi dañu am lu woy organisation offensive ak organisation défensive moy ñent yoyu amna lu leen juromel juromel moy les CPA moy les coups de pied arrêtés démb gis nañu ni équipe nationale liggéey na ci lu béré béré béré béré parce que société aussi match bi yépp action yu décisive ñu gëna am si loolu lañ ko amé te daanaka sa bi bi si loolu lañ ko dugalee te loolu day li nga xamanteni tay ci si football haut niveau dafa am solo lool lool lool lool te comprendre nañu loolu benen affaire bi moy am nañu suñu équipe bi dafa am euh, lu ñuy wooyee mayone kii comment dirais-je euh, diversité am nañu ay mag ak ay ndaw te mag ñi ak ndaw ñi suñu leen boolee je pense que dinañu mën a taxaw bu baax ba taxawal projet bi beneen aspect bi mooy équipe bi dafa am poste bu nekk au fait dafa interchangeable mooy koo génnee rek ki ci ñëw mën na def liggéey bi loolu tamit dafa am solo mais nag dañuy dem si jongante bi nga xamante ne premier match bi dafay métti trop parce que ban kan la ñu am mooy Gambie Gambie équipe la bi nga xamante ne ñu nag ñoom ay wujj lañu dañoo non seulement ay équipe ay pays frontaliers frontaliers lañu mais foo fekk Sénégal Gambie rek da fay wara metti mais nak lool nak match boobu niñ ko war aborder abordé waxatuma sa suñuy wesso match bob sa yenen match yëpp moy Coupe d'Afrique bi pour ñu jouer ko dañu wara humble d'abord am la tête sur les épaules ñu xamni baña xép kenn ñu surpassé wu rehausser suñu niveau de jeu surtout match bob contre Gambie Gambie dina ñëw jëm hartank tànk jëm ñu acculer gëm ñu bousculer mais ñun dañu rester serein pour mën a jëli Gambie xam ni tey suñuy jël valeur euh, si comment dirais-je euh, individualité yi ñun ñoo peu. ko ëpp suñuy jël tey si xarañte ñoo leen ko ëpp mais football du loolu rek football dafa am lu ñuy l'engagement la détermination loolu nak équipe bu ko ëpp moromam rek wa daanaka moom mooy jël ndam li parce que duel yu bëri soko ko déjà daanaka bal mat mi sa poche ñun ñu baña nek ay sédentaire baña nek ay ambassadeur mais ñu xam dañu dem pour xex pour conserver les nga xamante ñun Je sais que waaw xam nga souvent critique mooy nettali gën gént xam nga tey man mon ngi équipe Je xew sama équipe man xam avec mon wut suis lay wax ni dafa projet dafa am lu muy wut te donc euh, c'est très prématuré Nous sommes ci biti di wax ni Aliou lii la la parce que Tanière vie équipe parce que ki ko ki fay nekk rek moo xam li donc man je me dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui il a fait jouer Crépin comme piston par mois mu dugg si dëgg bi moom ce xam li veux